yéen yàlla xëy ci xasida yi waxuma tawfeex waaye da ngeen am xaas tawfeex ju ànd ak xaas la ci yàlla bu baax jëmn ci kenn mag secret baa secret sëñ bi xasida yi moo gën a gaaw moo gën a gaaw ci jege sëñ bi moo gën a gaaw ci am ngërëmal sëñ bi moo gën a gaaw ci defaru doomu aadama waaw incha allahu kon bala ngeen di teewlu rek xasida googu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 fu sëriñ bi doon ñaanee boromam na ko yàlla nag ma def ci biir poosu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma nekk ci poosam loolu waxin la waaye ci xolam ba rek la ci jublu jay bu day tekki xol waaye dañ ko àbb di ko tekkee poos ndax xol dafa nëbbu kenn mënu koo gis waaye poos itam noonu la nëbbu kon mu ngoog kon jay bi day tekki xol moo tax ne yàlla nag ma def ci biir po ca biir poosam ba sallallahu alayhi wa mooy fu yonent bi sallallahu alayhi wa jëm rek day mel ni mi ngi ànd ak sëñ ca. alal la si adaxaltani fii jay bi ilal jinani màkkisan bi say bi ca mafatul bisri ndax ñaareel lu nekk sa poos ak koy bëgg danga nga koy yomb di lamb moo xam ay wéccet la wala ay këyit danga koy lamb léeg-léeg moo tax mu indi ci baatab say bi sab koy tekk sop yàlla ma tàbbal ci biir xolu yonent bi salaasan ci biir poosam ba ba kera may tàbbal jana waaye mu ànd ko sopp ba yonent bi mu ko kon waaye wa bil ma alis xal yàlla na nga def sama yitte sama soxla yëpp mu yitte yu kawe ya yu kawe jaam bu ne day fexe am yitte ci digganteem ak boroomam ixfir na nga jéggalal bi ci barkab yonent bi lee ñal ma yow yàlla ala si la nga xamee ne taxadamaa jiituloon naa ko ci mooy la wamaata ak lu ma yéexee ci topp ma yàlla na nga doolee jiital sax nii sama mbir wa aslih yàlla na nga yéwénal saaxir sama saaxir wa baatin ak sama baatin ma an mboole seen waxamaha yàlla na nga notal lii ñal ma bi jaax ci darja yonent bi ahadiya sama noon yépp yàlla maa ngi leen ci daraja yonent bi nang ma jéggal mboolem loo xamee ne jiitaloon naa ko ci moy la jéggal ma lépp lu weesu rek nga xam ne dama la ko mooy waaye loo xam ne dama la ko waroon a topp waaye sàggantee tax yàlla jéggal ma ko waaye nag sama mbir yëpp nang ko jiital lépp lu bokk ci man nang ko jiital bu mu bokk ak beneen mbiri keneen sama mbir yëpp nang ko jiital yàlla na nga defar yàlla na nga yéwénal sama baatin ak sama saaxir maanaam daal nañ dëppoo ñoom ñaar yëpp nañ doon tawafaqa nga xam ne ni baatin bi mel ci baax ci laab ci set noonu lay saar gi di mel ci taar ci rafet ci set ñoom ñëpp daal nang leen taaral yéew na leen defar leen waaye yàlla nag ma notal ci barkeb yonent bi sallallahu alayhi wasallam mboolem samay noonu yëpp nag mu musal ci ñoom wasal yàlla na ko julli yaa yow yàlla muy aji méngoo jurul yow yàlla muy aji méngoo mbiri julit bi alal xafi yi ci kaw ka nga xam ne mooy aji jotal ja mooy ka xam ne da daan sonn rek ngir bëgg a jotal kooku mooy xafi yi ci kaw aji jotal ja yaa xayra man yow ngën koo xamee ne ye jóoru dana tabe bil max fii la nga xam ne mooy lu nëbbu la wa ali julliwaalal ci waa kër wa sax bi ak saabaame ba kunta yàlla nga doollee nekk lii ñeeno bi kun ci barkeb kun fa yëkkoon dawaa man ci luy sax ba faw wal taqabal te yàlla nga nangu kulli sama lépp yàlla na ko jël yow yàlla muy aji mi nga mbiri jullit bi ci kaw yónnente bi nga xam ne mooy xafi mooy koraan sonnal boppam ci jotal lañ ko yónni yàlla mi nga xam ne képp kuy tabee la nëbbu yaa ca gën dégg nga doomu aadama naam mën nga koo tarbiyu mu di la u dila la tarbiyu ba di xamal lu nëbbu ca yàlla waaye nag yàlla ca dëgg-dëgg nag yow sëriñ bi mënoo koo xamal taalibi bi waaye yàlla moo ko ko xamal kon booy tarbiye nit ki da koy yar génne ko ci rasa ilia yóbbu ko ci fada ilia ba mu mën a jubóog boromam moo tax mu ne ko yaay ngeen ci koo xam ne dana tabi yu nëbb ya mu di ko gis nga xam ne kon kuy gis lu faddu rek lu nëbbuta rek loolu suñu borom moo la ko jox moo la ko xamal moo la ko may nga di xam mu ne julli wàleel ci waa këram ak saabaam waaye yàlla yàlla nga farek man ci barke bi kun fa yëkkoon nga xam ne lépp lu may bëgg rek na ko kun fa indi faw waaye yàlla nga nangu mboolem sama lépp yow yàlla yaa mutaali woonal yow aji kawe ji yàlla nga julli bi tasliim gu ànd koog sëlmal ala nabi ca yónente ba alafu yu kay aji baxale ji si taxali bi kay borom jàngale ga wala ali julli wàleel ci waa këram wasan bi ak saabaam yow waxus yàlla nga jël ma bi sama njaay mi nii jëlee ko ci man bi sama ni ànd koog njëgg dégg nga ah, fii rabien ci biit weeru rabiul awal yow yàlla woo naa la yow muy aji kawe ji te dara du la tiim yaa féete kaw lépp yàlla na ko julli ak salmal ci yonente bi nga xam ne mooy alafu yi bokk ci turam we suñu borom wax na ko ci alxuraan xusil afwa te yonente lu ko yàlla mos a sant melokaan yu la yoroon mooy jukkoo makaarim axlaax borom xam-xam yi ne lu la waaye a def ak lum ñagas ñagas maanaam baxal ko waamur bil urfi te looy def rek na man rek tax man yàlla na nga def ci njekk rek waaye waamur bil urfi wa a'rid anil boobu dégaluwuñ dégaluwuñ ko xare moo tax man ko arin ani jaahilin way réer ñi moom na nga leen dëddu boo leen dégalee bañ a topp itam na leen bàyyi waaye dégaluñ la nga xeex ndax boobu aaya juy firndal xare ba wàcc gut moo tax na nga julli ci yonent bi nga xam ne mooy aji baaxele ko waaye mosa def rek moom jukkoo makaarimul axlaax moo nekkoon ci moom ndax innama bu'ithtu li ma makaarimul axlaax waaye mooy ki nga xam ne dañ ko yónni ba tey ngir muy jàngale niñ ko yónnee mu mottali jukko yu rafet yi noonu lañ ko yónnee ngir mu génnee nit ñi ci réer yóbbu leen ci xam ak xàmmee mu ne julliwaale leen ci waa këram ak saabaam ya yow yàlla yàlla na nga jël njaay mi ma lay njaay ba noppi jox ma njëg ci weeru gàmm kon njaay mi moom ci weeru gàmm ci yu bëri boo demee ci nuuru daarin bëri na bayit yoo xam ne day wane borom ci weeru gàmm yi la jël marchandise ma waaye ci weeru gàmm yi ci la ko jox njëg ndax weeru gàmm yi la gënoon di liggéeyal yonent moo tax mi ne waxu si yàlla nga jël ma bi sama njaay mi ne jëlee ko ci man bi sama ni waaye nag ànd ko njëgg boo jëlee marchandise nag ma ci toftal ak njëg ndax ku jaay marchandise dëgg dëgg nag njëg ngay séentu bi fii rabian ci biir rabion awal weeru gàmm weeru yontu saa sam gën a jamono yaa baru yow aji baax ji woo naa la sa leen yàlla nga julli alal wali ci kaw aji méngoo mbiri ci kaw aji méngoo salaamin na ànd goog salmal goo daa imin aji sax la mardi yi gu la wa alihi julli wàllal ci waa këram wa sax bi ak saxaabaam yépp mu ne yàlla woo aji baax ji na nga ci yonente bi sallallahu alayhi bi alihi wa saxbi ajmain moom mi nga xam ne mooy wëlli yàlla ni mu nekkee wëlli yu noonu la yónente bi nekkee wëlli yu yónente moom ñi dimbale mooy ñi ko gëm bi mu wootee bi ko yàlla yónnee ñi muy dimbale mooy ñi ko gëm topp ko yàlla yàlla ba tey mooy alwaali ñi gëm lay dimbale ndax allah wëlli yu la si na amono kon wëlli yi nu mu ci turu yàlla yi noonu la bokk ci turu yónente bi moo tax mu ne woo naa la yow aji baax yàlla na nga julli ci kaw yónente bi nga xam ne mooy aji méngoo mbiri ñi ko gëm julli gu ànd ko sëlmal na ko julli ci kawam waaye goo xam ne day sax ba faw goo xam ne gu ñu gërëm la waaye julli waalal ca waa këram ak wasxatta yàlla na nga seede lii ñeel ma bi tawbatin ci ak tuub boo xam ne nangu nga ko ak moo xam ne jël nga ko jox ma njëg ma ma xan mboolem seen yàlla nag ma seedal tey jii ne tuub yi ma lay yëpp yow yàlla nangul nga ma ko man sëñ Tuubaa waaye jaayante gi ma jaayante gi yëpp nangu ko ba noppi jox ma njëg yëpp ci am moo tax ma ne wasaat yàlla na nga lii ñel ma bi tawbati ci tuub gi may tuub ne nangul nga ma ko wal bayxe ak njaay gi ma jaayante gi yow ne nangul nga ma ko jox ma njëg ma jox la marchandise ma maan mboolem seen kon lépp day wane suñu borom subxanahu wa taala xeeti jaayante jaayante ak yàlla yëpp suñu borom mi nga xamee ne mooy ki nangu nangu na lépp dégg nga kon nag yàlla na ko yàlla fayal ci waxtu ne ci barke alquranil karim bi jaay si di jo sallallahu alayhi wasallam moo tax ma tax ci nag wajut yàlla na nga tabe lii ñeel ma mooy lan ci jaayante ga mooy yàlla jox ko ca njëgga tabe ko ca njëgga bu dee tuub ga yàlla nangul ko ko moo tax ma wajut yàlla nga may lii ñeel mooy la ko lam jaay yàlla suñu borom tabe ko ca li nga xam ne moo di ak njëg yàlla na ko yàlla fayal jut yàlla nga tabi li ñel bi ma asa ci lépp loo xam ne danaa ko bëgg wa ma axtaar lépp loo xam ko tànn bi kun ci barkeb kun nang ma ko may bi ci barkeb yonent bi yàllaahu yow yàlla yaa moxtaar yow mi aji tànn lu neex bi laa xisaabin ci lurun nga koy xisaab sarmadan ba faw wala salab du jaageen nga koy rinkiwaat mooy jëlaat ko mooy maye nangu <laughs> wolof dana wax maye nangu oo jeex yàlla na nga jëmale lii ci man sarmadan ba faw bi ci darja bi ci darja yonent bi atalab càkkutéef la yàlla lépp lu may bëgg ak lépp lu may tànn maa ngi la ñaan ci darajay kun fayakun nanga ma ko womatal jox ma ko ci barkeb yonent bi yow yàlla mi nga xamee ne yow dong yaay yàlla yow rek dong lañ war yaay muxtaar wara bi ko yaxluqu maa yashaa'u wa yaxtaaru maa kaana lahumul xiyara yàlla nee na tànn ci ma la ne maay tànnal sama jàmm bi lu ma neex defal ko ko kon tànn ci yàlla kon kooku muy muxtaar nee na yàlla nag ma may lépp lu may bëgg ak lépp loo xam ne tànn naa ko ci darajay kun fayakun te boo ma ko mayee bu ma ci réglé muy xisaab xam waaye bu la yëmal xiyaamee fitna lay mujj jural la rek ndax xisaab bu métti borom alal yëpp noonu la ñu demee ëllëg yëmal xiyaam gis nga yonente yàlla Suleymaan yonente nee na balay dugg aljana juróomi téeméer at danu ko am te ko ko njëkk duggee lan moo waral mooy xalalam ji te Suleymaan ku ne xam ne ne alalam ji du ci daan mooy yàlla kon ana ñi nga xam ne tey am nañ alal te doonuñ yonentu doonuñ wëllu ay jullit ñooñu bu ëllëg yëmal xiyaamee yàlla yàlla dabaata ñoo yërmande yàlla kon bu mu rek le ba faw te bul ko jëlaat mooy salab yàlla na nga jëmale ba faw ci daraja yonente mooy li nga xam ne moom lay sakku ci yow jutta na nga tabe li ñeel ma bil qur'aani ci alqur'aan wal masaniya ak fatiha wal masani ak fatiha falaka ñeel na la yow dong dong sukkuri samay cant min rabbi ansani ci weeru rabion sani kon jaayante ga moom amoon na ak jox njëgg ci weeru gàmm muy rabbi awal waaye rabbi ansani ci lay sant yàlla ngir di feddali njëggi ko yàlla joxoon ci weeru gàmm rabbi awal day feddali nag cant gi ci weeru rabion sani mu ne yàlla may nga ma alquran ak fatiha xam nga alquran ku ne xam na ne fatiha ci biir alquran la bokk waaye nag fatiha day mel ni moom téere boppam la boo ko doon misaal moom téere boppam la dafa màgg-màgg nga xam ne nga xam ne lépp lu alquran di jàngale ay li muy jàngale bépp ay bu nekk ci biir alquran la muy jàngale mi ngi ci biir fatiha waaw mooy sab'ul masaani Sëñ Tuubaa ne li tax ñu tuddee ko ko mooy dafa wàcc Madina wàcc màkkatul mukarram moo tax ñu tuddee ko maanaam maanaam juróom maanaam ñaar yu ñu wàcc ñaari yoon maanaam saar woo xam ne dañ ko wàcc ñaari yoon bii ñu wàcc ko màkk bi ñu nekkee màkk bi yonent bi nekkee màkk bii ñu wàcc ko bi mu nekkee madina kon mu ne jurta na nga tabee lii ñaan bil qur'an ci alquran wala masaani ak masaani te mooy fatiha falaka ñeenal yow kottu kottu mooy lu ñu ñaareel ak wàcceem kooku mooy masaani nga xam ne ñaari yoon lañ ko wàcc wal masaali ak la ñu ñaareel ak wàccam te mooy fatiha falakal ñeenal yow dong dong sukkuri sama cant mi rabbi ci weeru rabbi weeru gàmmu weer wu ca topp mooy rabbi ansaani mooy rakki gàmmu xab na may lii ñel ma biha ci moom biha ci ok biha gi damir gi danga koy delloo ci masaani gële biha ci fatiha wa bil kitaabi ak ci téere ma asa lépp lu may bëgg yaa man yow aji tedd ji nga xam ne yafaalu da nga def kulla maa yasaaw lépp lu la neex yàlla nag ma may ji ak ci biir téere bi yëpp lépp lu may bëgg yow aji tedd nga xam ne lu la neex def yàlla moo ne inna allah yafaalu maa yasaaw yàlla neen lu ma neex def du ma tàggu kenn wahab yàlla nga may lee ñeel ma fii ci biir faatiha u fil kitaab bi ak ci biir ba tey kaw ni sama nekk saa i xan di aji màng saa bi xan di aji jiitu ñëpp bilaa itaab bi ci lu gën ak yeddaange yàlla yàlla nga may ci biir Fatiha ak ci biir téere bi di alquran yëpp ma doon man Sëñ Tuubaa doon ko jiitu ñëpp saabix kooku mooy koo kenn du njëkkoon moom fa moo jiitu ñëpp sabaxtu xayre ilal jinaani Sëñ Tuubaa neen jiitu naa ku man ba keroog may tàbbi aljana te nee na jiitu googu koo xamee ne am na ci tombok sikk sàkk rek nee na texee di dal na la laqad sabaxtu fala yafa ala ahadin ila ala ahadin asfaahu mawlaahu laa fa akbar kon waxab yàlla may liye ñal fiha ci fatiha wa fil kitaab ubil kitaab yi ak ci biir téere bii di sama nekk saabixan di ajraw ñëpp di la itaabi ci benn yeddaange dégg nga waab yàlla nga may lee ñeel ma bihaa ci moom inxiraatiya sama nosu xadda ëllëg fil kurama ci biir way tedd ña waxal li te nga saxalal lee ñeel ma yaatu dund yàlla maa ngi ñaan ma ci barke Fatiha sama nosu ëllëg yomal xiyaam bokk ca kuréel bu tedd ba muy way tedd ñi muy yonent waaye nag ma saxalal yaatug dund moo loolu mooy aljana wa kullan wa kula mina raqadan xaytu sixtuma nga yàlla waxoon sayidina aadama ak sayidatuna Hawa kon waxab yàlla nga may lee ñal ma bihaa ci fa barke fatiha in xiraatee sama nosu xadaa ëllëg yomal xiyaam fil kurama ci biir way tedd ña mooy moo bokk ci kuréel boobu ndax ñoo jiitu ci ñëpp balaa kenn dugal aljana ñoom danañ dugg waxali te yàlla nga saxalal dàkk lee ñal lee ñal ma raqada ak yaatug dund jut nanga nga lii ñeel ma bi an akoona ma nekk man sëñ tubaa san xiraati di borom ak nosu fii silki man ci buumum ña nga xamee ne xuddoo jubalees na leen bilaa ifraate ci lurul ñi sàggan mooy ëppal mu ne yàlla may ma ba tey ma bokk ci fiil ga nga xam ne mooy nosu xam nga fiil boo degee mooy fiil lu mel ni kurus danga koo nas mu ànd gaa yàlla ba la yëmal xaw noonu la ñu mel dañoo mel ni kurus kuñ nos noonu la ñuy dem tàbbi aljana yàlla nañ ci bokk moo tax nag ma may ñi nga xam ne yàlla te duñ ëppal mukk duñ jéggi dayo duñ mooy nga xam ne yàlla tagg na leen duñ mooy yàlla duñ jéggi dayoo duñ def ifraat mukk mu ne yàlla na nga may nag boo la yemal xaamee ma sóobu ci fiil ak nasu ci fiil ak ñooñee dem tàbbi aljana moo tax na jut na nga tabe lii ñel ma bi an akoona sama nekk san xilaat di borom nasu fii sil ki man ci fiilu ña nga xamee ne xuddoo jubulees na leen bila ifraat ci lur ak ëppal muy ci lur ak sàggan aw rastani donnaloo nga ma alkitaaba téere bi xab na nga may lii ma istifa an dañu xasaf xam sa gi ak sell waxabta yàlla nga may lii ñan ma asabqa ak raw bi jaahil Moustapha ci daraja ka ñu tànn ka ne yàlla yaa ma donnaloo téere bii di alquran yonent bi ci nga ko wàccoon mu bay ko fi nga donnaloo ma ko kon nag nag ma may ak sell waaye nag ma may ak raw ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wasal yàlla na ko julli sarmadan ba foofu alayhi bi salaam gàndu koog sëlmal wa ali ak ñoñ ña wa sax bi ak saabaam yaa xam ne ajaali ñoo ma di way dàq asalaam lëndëm ya yàlla yàlla na ko julli ba faw ci kaw yonent bi julli gu ànd koog sëlmal waaye julli wàllal ci waa këram ak saxaabam yi nga xam ne ñoo fi jële lépp lënd mu réer ak bokkale ak naafiq wansur yàlla nga tasaare alayhi sama kaw barakaatihi barkem ba maxan mboolem seen barakati sax bi ak barkeb saxaabaam ya waqamaha te yàlla na nga notalal lii ñel ma xeddaa samay noon yàlla barkab yonent bi nanga ko wisaare sama kaw man sëñ Tuubaa barkab saxaaba yi nanga ko wisaare sama kaw man sëñ Tuubaa te loolu yëpp suñu borom wax na ci yeneen xasida yàlla defal na ko bu dee barkab yonent bi suñu borom jox na ko def naa nekk ne ileequ tabarakaatillahi yaa man axsantani bi millahi ca yàlla moo womat barkeem moom jëm yàlla ji xapp ko ci kawam mu ngóob kon yàlla nga wisaare sama kaw barkab yonent bi ak barkab yëpp ma toll wan sur yàlla nga tasaare ale sama kaw barakaati barkeem barkeb yonent bi barakati sang bi ak barkeb saxaaba yi ma xan mboolem seen waxamaxa te yàlla nga nootal lii ma xeddaa samay noonu dégg nga barkeb yonent bi barkeb saxaaba yi ku ko làmboo moom sa noonu wax mi yàlla na nga xaar sama dund bi rijaali ma doon sa yonentu wala to asim te yàlla na nga doolee màggal xadri sama daraja yàlla na nga xaar sama protéger di ma aar ba lépp luy lor moo xam ak lor bi fu mu mën a baye ko yàlla nag ma booleeg waa ahlu ñi di ma xaar ci sama dund su ko defee ma doon alhamdul xadim doon jàmm boo xam ne day liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi ba faw waaye yàlla na nga doolee màggal li nga moo sama daraja yàlla warda yàlla na nga gë doolee gërëm xanhum walis leen ñoom waa ahlu badar wa ani sax bi ak walis saxaaba ya alkiram ñi way tedd wa suux yàlla na nga màggal lii jëmee ci man sarmadan ba faw biim ca seen daraja fa waxal maram lu kawe càkkutif la yàlla yàlla nag ma gërëmal mboolem ñu teewe woon badar 313 yëpp ak ña xam ne dañoo amoon gànt te demuñu waaye yàlla na nga gërëm saxaaba yëpp ak nuñ man di toll 124 mille yëpp na leen gërëm waaye yàlla na nga màng ba faw ci seen daraja lu kawe sama càkkutif jëmee ko ci man ci waxtu ne na ma koy defal bi jaay sidi lu jël salaam mbokki Mafatihoul Bichri ñu ngi leen di ñaan bala ngeen a àggale xasida googu ngeen abonné ci seen seen YouTube Ibrahima Diagne taalibe borom Touba ngir gën a mën a yaatal liggéey bi ba mbokki taalibe yëpp jot ci incha allah te bu leen fàttee bu ci kolos bi bu ko defee bépp waxtaan waxam seen dugal nañ ko ci seen seen YouTube rek ngeen mën cee jot incha allah moo xam firi mafaatihul bisri la wala yenn ci diwaani yu demee ni diwaanu diwaanu xuraaniyat yi waccal yàlla nga def yow yàlla kitaabaka sa téere bii di alquran mu doon ak kiiraay bu dox bay nii sama diggante wa bayna kulli maradin ak diggante bépp tawat waray ni akuk tër tër yàlla nga def sa téere bii di alquran muy xijaab muy kiiraay gu dox sama diggante ak géppuk tawat ak tër tër nga xam ne téere bi muy jàng moo tax mboolem xeeti tawat yi téere bi moo doon hijab bu koy musal ci tawat yooyee ak mboolem xeeti tër-tër yi téere bi moo ko cee musal hijab masalan mooy jël mbir doxale ko sa digganteeg dara masalan lu la bëggoon a lor nga am loo jël doxale ko si diggante bi loolu la ñuy tuddee hijab hijab mooy hijab mooy ciiraay wa isaa xaraxta alqur'aana jacal naa baynaka wa bayna lësina na yumnoon bil axirati xijaaban mastuur dégg nga alqur'aan ba muy wax ak yonent bi saai sallam kon xijaab moo di ab ciiraay baaraas boo xamee ne masala nit bu la bëggoon a lor suñu borom musal na la ca ngir ciiraay ga moo dox sa digganteeg lor ga ba du la mën a lor maradin yi nag mooy tawtu xol lu mel ni ndistal lu mel ni kañaan lu mel ni bañ jaamub yàlla yu alquran jàng gi nga koy jàng da koy saafara day saafara dënn di saafara xol ba lépp luy xeeti feebaru xol alquran da cee mën a musal nit ki ak lépp luy tër-tër tilim tilim alquran da cee mën a musal nit ki moo tax wàccaal yàlla nga def kitaab ko sa téere bii di alquran xijaaban mu doon ciiraay gu dox bay nii sama diggante wa bay na kulli maradin ak diggante géppuk tawat wa ray ni akuk tër bépp tawtu xol ak tilim tilim xol téere bi na ko effacé ci man ndax am na ñoo xam ne loo jàng-jàng alquran alquran du leen loo jàng-jàng alquran alquran du leen saf dara ci seen biir xol yi koom kooku seen xool yi tawata ci nekk ak ay tër ak ay tër bu sëñ bi nag xijaab la alquran téere bi muy jàng di alquran mooy xijaabam ba nga xam ne gépp tawat ak tër tër suñu borom subhanahu wa taala dana ko ci musal waxab yàlla na nga may léeñal ma talaa suma may toqoo di njàng téere bi di alquran njàng mu diib muy njàngum tartiil waraqatale ay si maa ngi lay ñaan yaatug dund ga maxal xalaawa ànd koog neexi tik jàng wa yàlla may ma fu ma toll taqoog alquran di jàng téere bi di ko seetantal ay maaniyam ci waxtu ne di jàng bi di seetantal ay maaniyam nanga may ci biir téere bi di alquran ma am dund gu naat dund gu yaatu lool dund gu neex lool dund goo xam ne genn ak tiis aki i xat-xat du ci waaye jàng gi may jàng alxuraan te tëqoo ko nag ma ci may neexatug jàng wax ndax mbir mu ne waxoon naan la cëpp doole mooy nga yëg li ngay def nga xam la ngay def mooy lan su fekkee da ngay jàng rek te xam alxuraan lu ko kooku bàyyi ko moo gën nga koy jàng ngóob yàlla ci yàlla musal booy jàng alxuraan di mën a fen mën a wax lu lu ci gannaaw dëgg lu ne nga def ko kooku bàyyi alxuraan moo gën ci yow sax maanaam nga jàng alxuraan ndax Sëñ Tuubaa nee ne bàyyi fen moo gën jàng alxuraan bu la wóoroon tey mën ngaa bàyyi fen bu la neexee doo jàng alxuraan waaye jàng alxuraan ndax fen jàng alxuraan dàqa wax lu kéemaan la yàlla na ngoog waxab yàlla na nga may lee ñal ma kaw nii sama nekk suróora daxri di mbégteem sama jamono yëpp wa bisra kulli sanatin di mbégteem bépp at wa saxri ak weer wa furxatal ayaami di mbégtum bis yi wal wuqooti ak waxtu yi wa na nga tey la lee ñal ma maskani sama dëkkuwaay wa xuuti ak sama dund yàlla man sëñ Tuubaa nag ma may ma doon mboolem sama jamono man lañuy ñuy daxru dafa jiggi adduna biñ na daxru day dem ba ëllëg yomal xiyam ba aljana ya lool yëpp ci daxru la bokk moo tax nga déggul mu ne antal kadimu anal xadimu daxran udimu fii ka sanaayi bu ne samaan nag mooy jamono ji ngay dund rek bu paasee jeex na boo faatoo jeex na waaye bu ne daxru moom bi ganaar bi mu fi bàyyeekoo sax ca la bokk ba tey fu ne nii lii am na ndax ku de xam ne ne gisuñ sëñ bi ci saay te ñëpp koy bégee dégg nga moo tax ma ne ma may ma doon mbégum sama jamono yëpp waaye at yëpp naa doon seeni mbégte weer yi ma doon seen mbégte bis yi ma doon seen mbégte waxtu yi ma doon seen mbégte waaye na nga sama dëkk bii nga xam ne moom laa sancal sama bopp nag ma ko teeyalal waaye nag dund dund itam na nga ko teeyal ci waxtu ne bu dee lépp am na sëñ Tuubaa mooy mbégum at yi di mbégum weer yi suxóor yi wa ayaami xadan lii sawaahilun nee na weer yeeg bis yëpp wala yëmal xam ne dañ may seedeel ngeen jëf ju baax jamono doon def ci seeni biir dañ may seedeel itam ak làpp ak lab gu ma nekkoon seen biir ak set gi ma set wi ci doon jaamu yàlla seen biir bu dee biseeg waxtu yi dégg nga mu ne wa surtout furxatal wuquut bi amali wa kalimi nee na mujj naa doon mbégum mboolem waxtu yi su fekkee jëf naa ci biir waxtu yi wala ma wax ci biir waxtu yi waxtu yi ci boppam ñoom dañ ciy bég dañ ciy kontaan kon kooku gis nga kon am na ñoo xam ne dañuy merloo waxtu yi am ñoo xam dañuy merloo bis yi am na ñoo dañuy merloo at yi am na ñoo xam ne dañuy merloo weer yi waaye sëñ bi moom lépp mbégti la bul fàtte ne weer yi ay jaami yàlla rek lañ yàllaa leen bind kenn ku ci nekk dafa am waxtu wu daw dégg nga ni guddi mel bëccëg mel ko nga xam ne yàlla mooy dinc guddi fu ko neex ba mu soog ko muy indi bëccëg te doo xam fu mu ko dencoon noonu la saax yi muy heure yi waxtu yi mel noonu la at yi mel noonu la weer yi mel ñoom ñëpp ay jaami yàlla yàllaa leen yebal kenn ku nekk dafa am luy liggéey yàlla lu mu bind lépp dafa am lu muy liggéey te fonk la ko yàlla dégg nag doomu aadama ak jinne rek ñoo ci dëgër bopp la leen yàlla dénk dañ koo xëtt wan ko ganaaw dem di topp mboy dégg nga waaye yàlla lépp lu bind te dénk ko ab liggéey rek ma ngi koy doxal ca na ko yàlla sante ba mu des doomu ak jinne moo tax mu ne ma doon mbégum bis yi ak waxtu yi waxtu yi dañuy béggee sëñ Tuba at yeeg weer yeeg bis yëpp bu yemal xam itam dañ koy seetal sëñ Tuba jëf ju baax jam daan def seen biir ñoom ñëpp mu ne yàlla na nga teeyal sama dëkk bi ak sama dund fu na am sëñ Tuubaa ku ne xam na ne nekkatu fi ci saxir waaye fu ne ñu ngi koy bégee ñi nekk ci biir waxtu ñu ngi koy bégee ñi nekk ci biir bisi ñu ngi koy bégee ñi nekk ci at yi weer ba péncam yàlla du dañ nit ñi di ko bégee lu ko ko may mooy sellal gu mu doon sellal boromam di ko jaamu ci biir weer yi jaamutoon weer yi waaye boromam subhaanahu wa taala la doon jaamu ci biir weer yi kon nag loolu kenn ku nekk ci ñun war na ko ca roy fexe ba xam ne daal saa boo xëyee ba jant sox na nga xalaat waaw man tey est-ce que tey mooy naa yàlla su fekkee fàttaliku nga nga tuubal yàlla su fekkee mooyoo yàlla nag la nga defoon tey ba xam ne mooyoo yàlla suba na nga ko gën a góorgóorlu gën a sàmm sa cër loolu mooy ragal yàlla nit ki day rek boppam bala ñu ko régler Sëñ Tuubaa ne ne koo dégg maanaam muy regle boppam di hisaab bakkanam di xam la muy jëf di xam la muy bàyyi bu yomal xiyaame kenn du ko hisaab waaye koo gis ñi hisaab rek lenn rek ko waral dafa toon bopp fii ci àddina boo lëg yomal xiyaame ñu hisaab xisaab du lenn lurut wan la na la yaa defoon lii kon nag boo bàyyi li yàlla tere dem ci lim digli ba ñëwul xamee kenn du li sab da ngay noppalu ngóob waxab yàlla nga may lee ñel ma kaw ni sama nekk xabiballahi di soppeeb yàlla bi li ma ànd koog lépp loo xam ne ixtata da nga ko tànn lii ñel ma yaa ilaahi yow sama borom wa an akoona ba danaa nekk ba tey furxatal muqaddami di mbégteem ka ñu jiital ka bi kulli ma yasuruhu ci lépp lu koy bégloo min xidami di bàyyi ko sama liggéey bii wasilati kooku mooy sama wasila wa jannati mooy sama aljana muhammadi turam mooy muhammad salli yàlla julli alayhi ci moom bi salaamin julli gu ànd koog sëlmal samadi ay yaa samadi dañoo dagg yaa umuna daaga yow yàlla mi sama kilifa gi ma jëmale aju te jublu ajjëm ci kenn bi aalihi julli waaleel ci waa këram wa sax bi ak saxaabaam yépp wasxat yàlla na nga seedeel lii ñal ma bi taw ba tidi sama tuub gi may tuub jëm ci yow wal bayxe ak jaay gi may jaayante ak yow waxutta yàlla na nga womata lii jëmee ci man suuxli samaw laaj yàlla nag ma may ma doon sab soppe yow yàlla wax na ci xasida yu bari moom xaritub yàlla la soppeeb yàlla la nga xam ne yooyu moom da koy gëñ naa ne xaritub yàlla soppeeb yàlla la wallahi inni xillun lil ilahi bi hibun lahu doona kasbin fii u te ne loolu fàgguma ko sax yàlla ma ko def rek kon yàlla nag ma may ma doon sab soppe yow yàlla ànd koog lépp lu ma tànnal li ko yàlla tànnal nag mooy li fi yónent bi bàyyi bu doonee soppeeb yàlla du tee fa yónent bi jaar lay jaar moo tax ma ànd ko lépp lu ma tànnal yow sama borom ba tey nga xam ne danaa doon mbégum ka ñu jiital ko te mu yónni saa sam kooku mooy muqaddam mooy ku yàlla jiital ci kaw mbindeef yëpp waaye nag bu ma doonee mbégam yónnent bi saa sam ànd ko lépp lu koy bégloo day bàyyeekoo ci sama liggéey bii di jëm ci moom nga xam liggéey bu mu koy liggéeyal yëpp day bégloo yónnent mooy sama mooy sama sëriñ bi dox sama diggante ak mooy sama aljana ndax moom rek lay dund moom rek laa mën a yëg saa bu ma ko tuddee bu ma taw tawatoon wér naa kak saa bu ma ko gisee kasaalika saa bu ma déggee turam kasaalika ndax tudd aw turam moo may wéttali muhammadun sikruhu unsi wa mafraxati wa nuuru xalbi wax daay waraxaati mooy leerug sama xol di leerug sama cërtër di sama naflaay sallallahu alayhi wa sallam kon kooku mooy sama aljana kooku mooy aljana turam mooy muhammad yàlla yàlla julli ci moom gàndu koog sëlmal yow yàlla mi nga xam ne yaay sama kilifa gi ma jëmalee aajo te jubloo ak jëm ci kenn julliwaaleel ci waa këram ak saxaabaam yépp nag ma seedeel tuub gi ma lay tuubal di dellu ci yow ak li ma jaayante yow na dootuma ci delluwaat mukk waaye yàlla na nga xomatal li nga xam ne mooy sama laaj muy sama paju aju yaa rabbi yow sama borom ini man sëñ Tuubaa taay bun aji tuub laa jëm ci yow awa bun tey delluwaa koon lakka jëm ci yow wa anta ta yow alxaafiru aji jéggal nga waaye attawaabu nanguwaa koon tuub nga yow suñ borom man sëñ Tuubaa kan maa ngi tuub di dellu ci yow jëm si ci yow yow lay tuubal ci yow lay dellu dellu gi mooy du def len luy waralaat muy tuub di gëm ak borom subhaanahu wa taala waaye du tee heure bu day tuub waaye saa bu tuubee dootu defati bàkkaar kooku mooy awwaab moom yàlla tagg na leen ni'mal abdu innoo awaab yonent yàlla ayub loolu ko suñu borom taggee dafa innahu kaana lil awaabiina xafuura suñu borom tagg na ba tey mboolem ñuy def ay awaab ne am nañ jéggal mooy seen may moo tax mu tuddee taxmis tuxfatul awaa mooy kadoog way tuub ñi di dellu seen borom di bin ñi di jooy di dellu seen borom bañuy dellu ca bàkkaar ya mu ne ko yàlla yaay aji jéggale ji waaye yaay nangu waa kon tuub ndax xaafiri san bi xaabili taw bi loolu borom bi subhaanahu wa taala wax warumtu danaa sàkku min ko caw alqurba ak jege saa taraxi di borom yëkkati ko jëm ci yow musaliyan mbir moom may aji julli ala nabi ci yonente bi alxaq kay dëgg yàlla maa ngi sàkk ak jege la ndax kuy tuub da ngay jege yàlla yonente salaa sam nee na bu yomal xiyaamee texe ñeel na koo xam ne fekk nañ téere jëfa mu bëri istixfaar mu bëri lam daan tuub kooku texe na kon yàlla nañu yàlla xiir ci bopp ñuy tuub di dellu maa ngi sàkku ceew jege la di borom yëkkati ko heure bu ne rek di gën bi nga xam ne mooy yonentub dëgg kooku nëbiyul xaq ndax dëgg moo tax yàlla yónni ko salli yàlla na ko jëli bi taslimin gàndu ko sëlman ala muhammadin ci muhammad wa ali ak ñoom sax bi ak saxaabaam bi wal humadi ak mboole way sant ña yàlla yàlla yàlla na nga julli ci kaw yonent bii di muhammad mooy ki nga sant melo biiram ak bitam yëpp julli waale ci karam ak saxaabaam bi ak mboolem kuy sant yàlla na nga julli waale ci moom watub to nanga nanga tubaale ci man wax di nii yàlla nag ma gindil sa bopp hidaaya ak gindeeku goo xam ne lay si yëkkunu déet may nekk baax daal ci gannaaw ko xawaaya di aji réer yàlla nag ma nangul sama tuub tey jii te na ma gindil sa bopp ma jëm ci yow gindeeku goo xam ne dootuma réerati mukk ba faw ci gindi googu nga gindi ma wajut yàlla na nga tabe lee ñen ma bil xaq ci dëgg fii xaqaay sama biir pas-pas wa mantaxi ak sama làmmañ wa xamali ak samay jëf yaa qaa'idi yow ki may womatal sa bopp jëmee ma ci yow yàlla may ma sama pas-pas lépp na doon dëgg lépp lu may fas rek na doon ak dëgg sama tawhid na doon dëgg naa ko pratiquer si dëgg waaye sama làmmañ itam na doon li muy wax lépp bu doon rek loo ne bànnee xam la sama làmmiñ na wax loo xamee ne dëgg rek lay doon samay jëf na doon jëf yoo xam ne dëgg rek lay doon yow may xomati ba ci mee ceew waxab na nga may dee a ma makaarimal axlaaqi te di ngeen jikko yi yaa xayra haadin woo naa ngën ci aji gindee ji nga xamee ne xaa idin aji woomate nga xallaaxi ki nga xam ne mooy mbindeef bi yow suñ borom subhaanahu nang ma may tedd ngeeg jukku yi tedd ngeeg jukku yi nang ma ko may loolu mooy makaarimul axlaax yonent bi amoon na ko Sëñ Tuubaa am na ko nee na sa nuuru daarin askan fii makaarimul axlaaxa yaa man mahal xurbata wal imlaaxa suñu borom yaa ma dëkkal ci biir jukkoo makaarimul axlaax bu doon ab néeg la bu yonent bi toogee ci kaw maa nekk ci ron ga askay askan fii makaarimul axlaaxa yaa man mahal xurbata wal imlaaxa moo mu ne yàlla waxab yàlla nga may lee ñal ma makaarimal axlaaqi te dégg nga jukko yi yaa xayra haadin yow ngën ci aji gindee mboolem kuy jubal nit ki yaa ca gën yaa ko dàq xaaidin kooku dana woomat xalaaxe ki nga xam ne mooy bidéef bi kon yàlla mooy gindi nit ki gindi ko ci boppam def ci mom jukku yam bëgg ci moom yëpp loolu yàlla rek moo ko man ku ko def itam yàlla la yàlla ci boppam moo may ca lam rek waaye manoo dara nit lu mu defal moroomu jaamam ba marale koog boromam lool ci boromam képp la boromam képp la sa kayta sellal nga nafsiya sama bakkan fala antaqimu déet may mbugal laxaa di ko fa anta yow almaaliku yaay aji moom ji al muntaximu tey aji mbugal ci tey aji fayantoo ji yàlla setal nga sama bakkan bam mu set wicc kenn du ma tooñati ba di ma fayuwaan ba ma topp sama bakkan di ko di fayu mukk déedéet bakkan bi itam yàlla moom loo na ma ko sellal ma ko ba nga xam ne du ma topp bakkan bi mukk te ko ma tooñ itam du ma topp sama bakkan ba di la fayu yow yàlla yaay aji moom ji tey aji fayantoo ji moo tax ma ne ko sakayta sellal nga nafsi sama bakkan fala antaximu déet may bakkan ba bakkan bi dootuma ko ndax léegi topp na sama ndigal laxaa ñeel ko moom bakkan ba fa anta yow almaaliku yaay aji moom ji almuntaximu tey aji fayantoo ji almuntaxim mooy ko wax ne lu ko def lu ne dana ko fayu moom imaamul Buusiri waxoon ne isal karimu taala bismi muntaxim bu yowmal xiyaamee suñu borom day takkaayoo tur wi di muntaxim lu ko waaye defoon lépp mu xam musrikoon yi kaafiroon yi faasiqoon yëpp mu fay ko yàlla musal ñi ci musibam yowmal xiyaamee bal li fi nekk indi nii man sëñ Tuuba us nii dana ma tagg dégg dégg nga alal xaw yi kay aji xam kattan ji wal matin kay aji dëgër ji mosal yan mbir moom may aji julli bi taslimin gandi ko sëlmal amin ci kañu wóolu ko li am daal man Sëñ Tuubaa tey ji li ma tax a jóg mooy danaa kañ di bakk yàlla moom muy xaw yi mooy ku dëgër ki mooy ku jan mooy ko xam ne lépp la man tëliku dara waaye bu ma noppee ci yàlla di ko tagg di ko kañ di wax meloom yu rafet ya tamat sëkk ca moom te du manqué mukk maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak sëlmal moom mi nga xam mooy amin mooy ku wóor ku ñëpp wóolu waa màkk yi sax dañ ko wóoloon yéeféer ñëpp ko wóoloon sali yàlla na nga julli ba al mujtabakati kuñ tànn al muhabbika di soppe ba sayidina kookoy sunu sang mahamadin turam mooy mahamad wala ali julil ca ñoñ ña wa sax bi ak saxaabaami fil xaali fii cër na bu fil maali ak delluwaay ba tamu ëllëg yawmal xiyaam yàlla yàlla nga julli julli ga ànd kook sëlmal yow sama ci kaw yonent bi nga xam ne mooy sa xarit ba mooy ka nga tànn ka mooy sab soppe bi mm, kooku mooy sunu sang turam mooy Muhammad julli wàlleen ci waa këram ak saxaabaam ya tey jii ak ëllëg nu jëm waxab yàlla na nga may dee ñen ma xadaalatan ak mandu ma tuqaa ànd ko ragal yàlla fii ku li seen ci lépp lëf lu man di doon wala tuddim te yàlla na nga saxalal lii ñel ma irtixa ak ak yéeg muy ak yëkkatiku maanaam sama yitte yëpp moo di ak yëkkatiku daraja irtixa ak yëkkatiku daraja yàlla na nga may ak mandu lu jafe la waaye ànd ko ragal yàlla mbir mu ne bu mu ci duggee rek naa ci feeñal ak ragal yàlla ndax inna laha maa la sin ittaqaw la sinu mus noona yàlla boo wéetee ak boo àndateeg nit ñi wala nga wéet yëpp dangaa war a ragal sa borom pour bu ne dal def al muraqabatul kubra ak suxra looy bëgg a ci lu bon nga xam ne yàlla mi ngi lay gis xam ne xam gi nga xam ne mi ngi lay gis nag nga bañ koo def nga xam ne kon foo jëm bindee bi naa xam ne kon dangaa war a fulu na yàlla mi ngi ànd ak yow kon nag waroo dem safaan yàlla may ma ak màndu dégg nga bu ma jéggi dayoo ci lenn loo xam ne dama koy séddale wala ma koy àtte naa ànd ko ragal yàlla foofu man di toll lu man di dugg rek naa ci ànd ak ragal yàlla waaye nag ma saxlal ak yëkkatiku daraja anta yow yàlla alaafu aji baxale ji wa raufu tey aji ñeewantu ji fax fu na nga baal ani ci man fii daaree ni adduna ko alaxira yaa man yow yàlla mi nga xam ne yéen foo da nga baxale yow yàlla yow kat yaay aji baxale ji tey yaay aji ñeewantu ji kon nag yaay aji ñeewantu ji nag ma ñeewantu yow aji baxale ji ba tey nag ma baxal bu dee adduna ak àllaaxira yëpp nag ma fi ñëwantu bu dee adduna ak àllaaxira nag ma fi baxal bu ma toppee lenn loo xam ne def naa ko ci adduna wala àllaaxira yëpp nag ma ci musal yow yàlla bu ma alhamdulilahi rabbil aalamiin yàlla na ko yàlla defal